metti parce que ki ñu ñàkk dafa bokk ci ñun dafa nekk baay dafa nekk suñu kilifa ma dafa nekk koo xamante ne dañ doon liggéey di ànd ak moom fu nekk ci àdduna bi te nit ki balaa nga koy xam nga voyagé ak moom balaa nga koy xam nga jege ko nit ku ni mel na boo ko jegee da ngay noppi lu dul ñaanal ko yàlla jéggal ko ay bàkkaaram xare ko àjjana li si des nag li loolu yàlla la yor ëllëg yàlla rek moo la mën a wax ëllëg nu muy demee li si des mooy julli ñaanal ko suuf oyof si kooram te li ñu gis dal na suñu xel ndax ki ñu ko jébbal pour mu teg ko si suuf kooku keroog ku ko fekkee rek nga mën a rassuré wu. monsieur Mbaye Guèye le PDG EMG. Euh, asalaamaaleykum. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. li ñu mën a jàpp ci nit ki yéen a ngi koy dégg depuis bi mu fi jógee ak léegi xanaa da ngeen di laajaat kañ mottali waaye depuis ko yàlla jël ko ruu gi dog avant ñu koy rob ba biñ ko rob ba pare yéen a ngi dégg liñ mën a jàpp ci moom man nag li ma mën a jàpp ci moom sama diggante moom muy sama mag yàlla def na man aw ma mag moom moo nekkoon suma mag lu baree baree baree bari moom laa koy diis lu baree bare bari maa moom ñoo koy waxtaane waaye ni ma ko defale ko defale képp kuy xam auto opérateur économique wala nga nekk autorité ci pays bi noonu la jaar ak yow eh, Babacar Touré jaratul ñu koy wax xanaa dañuy baamtu moi je pense que actuellement lan ngeen koy ñaanal rek la ñuy posé nit waaye jaratul luñ lu ñuy wax ci moom parce que li ñuy wax ci moom nutuñu wax ba wee ba wax lu weesu lu ñu wax ci moom et lépp li ñu nit di wax ci moom ku ci ku ko xam ko ne xam nga loolu ci moom yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla teeru seede yin ko seedeel yal na ko yàlla ful teere ko ko ci bàmmeelam yóbbu ko ci àjjana firdaws jàpp naa ne jaruñu ko ñu leen koy wax xam naa ni ñun ñëpp ku ci nekk fi nga toll président Macky Sall toll na fu toll noonu ci moom xawma xamaguma lan la xalaat waaye Babacar Touré obligatoirement dina am nañ ko rendre hommage dinañ ko tudde loo nga xam ñëpp dinañ xam ni kii liggéey na lu toll nii ci Sénégal ndax liggéeyam bokkut ak yeneen liggéey Babacar Touré daf doon liggéey ci saa wane ko saamu mu wane moo tax jàpp nañ ni ku ci nekk ci ñun xalaat na lan ku nekk nga xalaat Babacar Touré hommage bi ñu ko war a defal ak lan nañ ko war a tuddee ci réew mi lu jëmmal euh, lim fi jëf ci réew mi. Euh, euh, héritiers yi sax presque mun naa la ni daanaka ci fekkee nañu seen papa ni ñu doon doxale seen rakkam bi nga xam mooy sës ci moom El Hadji Cheikh Touré. déjà moom laay wax tout le temps ma ne Babacar puisque moom la Babacar daan yónni lu baree bare ci jëf ba tax na moom itam mel na ni Babacar déjà yaakaar naa ni ci deretam la. yaakaar naa ne direct Babacar Touré mënut a mënut a bañ a mel ni Babacar Touré mm-hmm. li ñu leen di wax mooy am nañu soxla ñoom mm-hmm. ndax baay bi ñu am ak ki fi jóge tey ñu war koo donn donn ku mel noonu dina metti lool ndax laneen loo def lu dul jaar ci yoon bi mu jaaroon di nga xas sa bopp.